xale bi ñu ko suul Dakar. Mhm. ma dem defal ko ñaan gi ni ma ko Pape Malick Mbow waxee. Mhm. dellu si Thiès. Mhm. le lendemain ma dem jàkka ja ba ñëw. fajar. tëdd di nelawaat. nee ma gént xale bi c'est très bien habillé. mu sol mënu ma la expliquer sax ni mu rafete ngir raam ci buntu néeg bi ba ñëw ci man. gént gi de. ñoo ni ma nijaay li nga ma defal yal na la yàlla fay. waaw ma tiit ci nelaw daal di yow. Hmm? wallahi wallahi est-ce wallahi wallahi ma xam ni rek alhamdulilah rabbi alamin nee na ma ni ma ni alhamdulilah rabbi alamin xam naa ni sa garçon la yàlla defal na ko sutura. Hmm. nee na mu ni ma nag ñaan googu. Hmm. boo demee nga waxal mu Pape Mbaye Mbow. dinaa ñëw remercier ko. bi ma demee xombal itam.

maa ngi yàkkamti pour mu jox ma ñaan gi man <laughs> wallaay mu ni ma Malick mm-hmm. bu ma génnee aju àddina mm-hmm. bu ma fàtte nanga ma ko ñaanal allahu akbar chaque fois bu ma demee xombal mm-hmm. ñu ngi ko suul ci jàkka ji dama koy ñaanal xale yi wax naa leen que ñoom je m'en sou je joxoon ak ñoom papa Modou eh, ñoom ñoom jot am nañu ñaan gi ñoom ñëpp la famille ay na yow loolu yaa ci jotagul woon ndaxte. nekkuma fii c'est une mm-hmm. mm-hmm. mm-hmm. baa ngi ni ñu suul. penku baa ngi nii. bopp baa ngi nii. tànk yaa ngi nii. mais dañ ko dañ koy def tëral ñëw ci da ngay fii. nga def fi onze fatiha mhm. nga pivoté ñëw ci bopp bi mhm. def douze ixlaas xul wallaahu ahad mhm. nga ñëw ci biir bi fii nga def neuf ayatul kursi yu neuf ayatul kursi yu parce que ayatul kursi yu bu ne war nga ko jàng boo ko nga bind ko nga téye nga ñëw ci tànk yi nga def sept inna anzalnaahu nga maasale bàmme bàmme bi ak salaatu salaatu boo mën mm-hmm. salaatul faatihi wala salaatu ala nabi bu la neex mm-hmm. nee na boo ko defee à cet instant bu fekkee mi ngi woon ci mm-hmm. yàlla sunu borom bi eh, ay ko dina ko allah macha allah macha allah macha allah macha allah onze faatihi